maître Pape Sène maa ngi lay nuyu. Euh, maa ngi lay fay Kumba. nga nekk euh, président bu comité sénégalais des droits de l'homme avocat au barreau de Dakar euh, déjà ngir xeex criminalité financière fii ci Sénégal parquet financier wuutu na ni gi ni démb la CREI kon lan mooy changé exactement. waaw d'abord damay fàttali rek comme ni ko sénégalais yëpp gisee démb gis nañ ne assemblée nationale voté na projet de loi bi nga xam ne gouvernement bi indi na ko en procédure. procédure d'urgence démb fële ci assemblée nationale projet boo xamee ne nii daf doon modifier le code de procédure pénale te coppite yooyu ñu doon indi ci code de procédure pénale daf doon indi léegi ñu jël li nga xam ne mooy pôle judiciaire financier mettre ko en place pôle judiciaire financier boobu nag ñuy mettre en place dafay ñëw jël place su CREI mais man damay wax ne sax dañuy wax ne supprimer nañ CREI mais man damay wax ne euh, maanaam en fait dañu dañu dañu dañu absorber la la la la crise c'est-à-dire le pool financier judiciaire dafa ñëw absorber la crise parce que am na lu bari loo xam ne ni dañ ko doon fekk ci crise te muy lu baax dañ ko gisaat ci biir crise donc te danañ ci ñëwaat parce que délit d'enrichissement illicite gis nañ ne kenn laalu ko ci réforme bi te crise yi moom moo ko doon connaître jox lañ ko ki nga xam ne moom mooy pôle judiciaire financier mais pôle judiciaire financier boobu solo bi mu am maanaam ci ni ñu ko ni ñu ko ni ñu ko defaree dañuy gis ne que dafay am lu ñuy wax un parquet financier c'est-à-dire que dafay am benn parquet boo xamee ne que nii moom mooy mooy yor lépp luy poursuite yi am également un collège de juges d'instruction financier am une juridiction de jugement financier mais également am une chambre d'accusation ak une chambre en appel Euh, boo xam ne nii ci affaire criminalité financière la mais loolu également dañ ciy toftal ay spécialistes ñoo xam ne ni seen xam-xam dafa màcc ci wàllu économie ci wàllu finance ak yeneen ak yeneen pour ñuy ñëw ànd ak magistrat professionnel yooyu pour mun leen a jàppale ci liggéey bi kon gis ngeen ne que composition bi dafa wute lool composition maanaam structuration bi dafay wute lool ak CREI bi beneen solo bi nga xam ne am na ko mooy en tant que défenseur des droits de l'homme ñu noté ko mooy euh, li nga xam ne que dafa am solo ci wàllu appel ñu koy wax le respect des droits de la défense te bu ñu naan respect de droits de la défense euh, maanaam le principe du double degré de juridiction daf ci am mooy maanaam nit ki bu fekkee dañ ko àttee convention internationale yi am ak suñu constitution ak loi yi nekk Sénégal dafay dëggal ne kooku dafay am sañ-sañ bu ñu ko àttee te àtte ba neex ko mun a yóbbuwaat àtte ji fenn ñu àtte ko loolu amul woon ci CREI tey ji ak le pôle judiciaire financier képp koo xam ne ni atte nañu la ci pôle judiciaire financier bi te yow d'accord loo ci atte boobu may nañ la nga yóbbu ko ci chambre d'appel financière bi nga xam ne dañu koy créer également dans le cadre de donc kon réforme bi sàmmonte na ak loo xam ne nii ñun défenseur des droits de l'homme yi daf ñuy soxal mooy lan le respect du des droits de la défense par le respect du principe du double beneen bi nga xam ne am na solo aussi mooy formation spécialisée bi ay magistrats yoo xam ne dañuy recevoir ay formation spéciale dans le domaine te boo xoolee CREI yi buñ bu ñu koy bi ñu bi bi ñu fa doon dem ay magistrats des juridictions de droit commun dañu daan daan jëlee ci juridiction régionale yi wala juridiction de de de de tribunaux de première instance yi de de de grande instance yi ñu ñëw di àtte ay infractions yoo xam ne nii laam tëj na sur le plan juridique danañu am jumtukaay yi war mais ci wàllu économie ak wàllu finance ak yeneen ak yeneen du ñu am jumtukaay léegi nag réforme bi également dafa prévoir pàcc bu rëy bu am solo boo xam ne nii une formation spécialisée ba nga xam ne dañuy am des magistrats spécialistes dans le domaine loolu également lu am a am solo la beneen bi nga xam ne également moo moo moo mujj mooy li nga xam ne moom la euh, maanaam euh, pool financier bi war a càmbar gis nañ ne que CREI yi presque li mu doon connaître mooy délit d'enrichissement illicite corruption ak yeneen délit connecte à la corruption mais tey boo jëlee pool bi pool judiciaire financier bi infraction yi nga xam ne moom lañ ko dox dafa yaatu lool am na loo xam ne nii moom ak juridiction de droit commun yi ñoo koy bokk comme lu mel ni détournement des deniers publics escroquerie portant sur les deniers publics les délits douaniers et tout mais am na loo xam ne ni moom rek moo am sañ-sañ tey di ko atte moom laa la doon wax ci njëlbeen comme par exemple lu mel ni euh, enrichissement illicite nga xam ne laa lu ñu ci dara lu mel ni corruption lu mel ni également trafic de migrants parce que tey la migration dafa nekk un phénomène mondial un fléau donc te dafa bari ay ay ay ay événements connexes ay phénomènes connexes lu mel ni par exemple trafic de migrants donc champ d' champ d' intervention pool boobu yaatu na yaatuwaay boo xam ne ni également dina mën a permettre tey ci ñun ni nga xam ne moom lañ ko bëggee mooy non seulement ñu am euh, des sanctions efficaces et efficientes mais également ñu jouer dans la carte de la prévention parce que tey poule bi war na jouer rôle sanction mais également war na jouer rôle prévention loolu également lu ama am solo la moo tax ñun dañu bokk ci ñi nga xam ne dañuy rafetlu wax dëgg yàlla réforme bi bokk ñoon ñi nga xam ne dañ naan ay reculade la ay échec la par rapport à la yi non moo tax ma ne man du wax ne dañoo supprimer CREI mais damay wax ne réforme bi dafa ñëw absorber la yi parce que wax naa ko ci njëlbeen CREI bi ñu ko réactiver en 2012 du lépp ci bonam parce que CREI yi même rendre na avant président Macky Sall CREI rendre na ci ay décision de condamnation sous sous sous sous Abdou Diouf tey en deux mille en deux mille quinze rendre na également ay décision de condamnation contre euh, contre Karim ñu ko càmbaree gis nañ ne am na ci loo xam ne nii. créé yi lu ñu waroon a xoolaat la par exemple lu mel nii le respect des droits de la défense par rapport au double degré de juridiction tey pool bi réforme bi jël na ko en charge ak yeneen ak yu nga xamante ni xëy na tey moo tax ñuy wax ne réforme bi dafay ñëw absorber un peu les atouts les points forts donc de la de la de la CREI mais également rectifier les points faibles de la crise. Euh, ce que dañuy dégg ñuy wax waa PDS wala sax révision wu procès Karim Meïssa Wade lu ne sax bokkoon na si li ñu tënk si dialogue nationale bi bu fekkee révision wu procès Karim Meïssa dafay am kon parquet financier bi mooy gérer dossier bi wala naka lay demee. waaw affaire révision procès. Mhm. Euh, tey jii mënuñu wax ne que euh, dañuy bu ñu buggee réviser procès Karim Wade dañuy dem ci pôle judiciaire financier bi déedéet parce que pôle judiciaire financier révision procès taxu ko jóg parce que révision procès boo demee ci suñu droit positif tey la loi organique de 2017 relative à la Cour suprême moom moo ko organisé boo jëlee article 92 bi moo lay wax. ci yan cas la ñu war a ubbi révision de procès mais moo lay wax également nan la ñu war a defee révision de procès kon man jàpp naa ne tey bu fekkee ne que dafa am ñu bëgg révision de procès ci wàllu li nga xam ne CREI àtte woon na ko loolu dañuy dem recourir aux dispositions de l'article 92 de la loi organique relative à la Cour suprême mais euh, pôle judiciaire financier bi mënu ko jël en charge par contre pôle judiciaire financier bi tey yëpp procédure yoo xam ne nii ñu ngi nekk au niveau de la CREI te pareeguñu moo xam ay phase de poursuite la ñu nekk moo xam phase d' instruction moo xam en instance de jugement bu fekkee ne que mu nga fa te jotuñu ko juger du moment que tey jii mettre nañu en place voté nañu loi bi bu bu ñu mettre en place le pôle judiciaire financier effectivement affaire yooyu yëpp comme ni ko gardé soo précisé dem dañ ko a transférer à donc ce nouvel mécanisme de juridiction de de ce nouvel mécanisme donc bi nga xam ne moom la mettre en place qui se trouve être le judiciaire financier mais waxu révision moom wax dëgg yàlla du domaine de compétence ki nga xam ne moom mooy concours judiciaire financier bi loolu loi organique cour suprême moo ko organisé te wax na ana ni ko war a defee ak yan cas ban moment lañ ko war a ubbi. Hmm. Euh, beneen laaj euh, moom mooy modification système parrainage bi nga xam ni jàllale nañ ko projet de loi bi adopté nañ ko naka nga gisee coppite yooyu aussi si wàllum parrainage bi. waaw wàllum parrainage bi aussi li ma wax rek ci réforme code de procédure pénale bi laay wax mooy réforme bu ñuy rafetlu la parce que nag li tax ñu koy rafetlu Euh, dafa am lu fi xewoon mooy maanaam Sénégal dafa instituer le système du parrainage euh, ci ci ci ci ci ci ci élection deux mille dix neuf yi lañ ko commencé expérimenter élection présidentielle yi mais bi ñu ko defee mu amul beaucoup de contestation de la part des acteurs politiques ba sax am ñoo xam ne dañu defoon recours auprès de la cour de justice de la CEDEAO cour de justice de la CEDEAO am lu mu ci wax mu wax ne que euh, Sénégal dama koy damay damay damay damay wax autorité sénégalaise bi système de partenariat pour méngale ko ba mu dëppoo ak le respect de la volonté du volonté des citoyens mais également mu dëppoo ak respect droit bi nga xam ne parti politique yi am nañ ko pour mun a participer à des élections donc ci kaw loolu bi ñu ubbee dialogue national bi acteur politique yi ci volet politique bi acteur politique toog waxtaan ci waxtaan boobu ñuy waxtaan ci national ci volet politique bi moom moo indi benn consensus boo xam ne que ni démb moom lañu doon mandargaal à travers la révision de l' article vingt neuf de la constitution muy lan muy ci parenage bi d' abord parrainage citoyen bi tey dañu indi taux bi jëlee ko de zéro virgule huit zéro virgule un à zéro virgule six zéro virgule huit donc minimum bi tey zéro virgule six la alors que bu njëkk zéro virgule huit la maximum bi un pour cent la woon tey huit zéro zéro virgule huit pour cent du fichier électoral te xam nañu suñu fichier électoral donc sept millions d' électeurs la environ donc loolu déjà avancé la bu jogee ci constat ci dialogue bi beneen bi nga xam ne également moo gën a am importance mooy ginnaaw le parrainage citoyen acteur politiques yi également ci dialogue bi dañu d' accordoon ñu def lu ñuy wax parrainage optionnel parrainage optionnel boobu dafa indi ñaari système de parrainage yu mu indi pour wax ne ku mënul dem parrainage citoyen bu la neexee nga choisir ci ñaar yi benn bi mooy le parrainage par les élus parlementaires c'est-à-dire ñi nga xam ne ñooy député yi mën nga dem ñu parrainé la boobu it également un taux de huit pour cent par rapport au nombre de députés te bi ñu ko calculer xayma ko sur cent cinq députés huit pour cent dafay correspondre ak treize députés kon mu mel ni képp koo xam ne ni tey bëgg nga am parrainage mën nga dem ci député yooyu pour am parrainage au nombre de mais beneen bi nga xam ne également option la parrainage par les les élus exécutif locaux nag mooy président de conseil départemental wala maire donc bi ñu ko defee également ñu d'accord ci taux boo xamee ne que ni vingt pour cent la bi ñu ko xayma mu war a nekk à peu près environ cent vingt exécutifs locaux kon tey yaatal nañu parce que euh, avant avant bi nga xamee avant démb ñuy adopté loi bi benn système de parrainage rek moo amoon mooy le parrainage citoyen non seulement wàññi nañ taux bi mais yokk nañ ci possibilité boo xam ne nii parti wala coalition de parti dañuy def choix soit nga dem parrainage élu parlementaire nga fexe fa huit pour cent par rapport au nombre total wala nga dem ci parrainage par les exécutifs locaux nga am vingt pour cent moo xam nga boole président du conseil départemental ak maire ba am ci vingt pour cent loolu soo ko defee également nangu na ko donc moo tax ma ne wax dëgg yàlla ci ci fànn boobu euh, dañuy rafetlu non seulement dañuy saluer waat le dialogue parce que dialogue bi permettre na un consensus sur des points forts sur le parrainage mais également dañuy saluer aujourd'hui l'attitude des parlementaires dans leur majorité nga xam ne démb dañuy voté ce ce projet de loi avec cent vingt trois voix yoo xam ne que nit ñoo ko nangu defe naa ne loolu wane na ne dialogue bi nit ñi nekkuñu fa woon pour dil nekkuñu fa woon pour xumtoo mais dañu fa nekkoon pour essayer de renforcer davantage sur notre système électoral, renforcer notre démocratie, mais également renforcer notre état dernière question, Maître Pavsen. Naka nga gisee dossier bi Maître Juan Branco yóbbu ca cour pénale internationale est-ce que jàppee nga euh, mbir démarche bu sérieuse waaw wala déet. waaw man euh, ci waxu ci affaire CPI ak euh, Juan Branco la ma ci waxoon démb moom laa ci wax tey te ca njëlbeen ba yëf yi ba ba ba yëf yi jógee dama waxoon ne lii c'est de la diversion mooy maanaam dañoo nekk fii di jéem a sërëm nit ñi mais ku nekk xam na ne maanaam tous les acteurs judiciaires sérieux xam nañu ne tey CPI juridiction boo xam ne que ne da ngay xëy rek jóg ne dama koy saisir on ne saisit pas la saisir CPI on le comme ça c'est-à-dire que ci pays dañuy condition internationale boo xam ne que ni d'ailleurs en Sénégal moom dëkk ratifié le traité de Rome loolu déjà am na lu muy symboliser ci attachement bi nga xam ne Sénégal am na a par rapport à la lutte contre l'impunité surtout par rapport à des crimes internationaux donc kon réew moom wax dëgg ñëw wax dëgg yàlla di am problème ak ce pays donc may wax ni diversion la parce que ce pays boo gisee traité bi bi ko bi ko bi ko bi pays juridiction la boo xam ne que ni boo ko bëggee saisir déjà du citoyen boo koy saisir lan li Juan Branco def citoyen bu na sañ nga ko mooy lan mooy dénoncer des faits devant le procureur spécial mais ku nekk xam na ne CPI conseil de sécurité des nations unies moo ko mën a saisir procureur moo ko mën a saisir mais également euh, li nga xam ne ko mooy les états parties ñoo ko mën a saisir mais effectivement dafa dem dénoncer ay faits mais faits yooyu mu dénoncer procureur spécial et procureur CPI bi également dafa am ay procédures internes yoo xam ne nii moom moo ko tënk te li ci njëkk mooy dafa am un principe buy gouverner fonctionnement de la CPI mooy lan le principe de subsidiarité principe de subsidiarité mooy CPI mënul ñu ko mettre en branle mënul ñu ko euh, activer tant que demuñu ba prouver te réew mi nga xam ne fa la mbir yi xewee di nekk juridiction ya fa nekk amuñu capacité wala boog nanguwuñu joxe suite par rapport à ces faits là naa ne boo xoolee tey Sénégal ubbi nañu ay enquête ci événement yi fi amoon mars deux mille vingt et un ubbi nañu enquête ci événement yi fi amoon au mois de juin deux mille vingt trois ubbi nañu ay instruction ay procédures d'information judiciaire il y a eu même certains qui ont reçu des jugements en flagrant délit ci yenn kii man jàpp naa ne mënuñu wax défaillant mënuñu wax également inertie beneen bi nga xamee ne que ni également am na importance ay infraction yi nga xam ne moom la CPI war a connaître du comme suñu juridiction nationale yi c'est-à-dire CPI dañ li tax mu jóg mooy les crimes d'une certaine gravité à caractère international par exemple crime de génocide crime contre l'humanité crime de guerre crime d'agression mais tey est-ce que mën nañu méngale li fi xew mois de mars ak mois de juin mois de mars deux mille vingt et un mois de juin deux mille vingt trois doyante damay wax ne tuutali ñu ko parce que nag bakkan rek bu rotee dafay dafay dafay dafay dafay doy waar damay wax nag ñuy wax ay fukk fukk ak ñaar fukk ak juróom mais quand même mënuñu tey di ko méngale ak crime de génocide wala crime de guerre wala crime contre l'humanité wala crime d'agression donc kon même fee yooyu maanaam infraction yi war a tax ces pays yi jóg amul Sénégal tey ba ñu mun ko ba ñu ba ñu mun a activer li nga xam ne ko moom mooy moom mooy moom mooy la kon loolu moom moo tax may wax ne wax dëgg yàlla naam acteur de la justice la te jàpp naa ne bi muy agir bi muy wax ak bi muy jëf du ki sol robe moo wax mais koo xamee ne que ni xëy na dafay def de l' activisme politique recevoir une commande politique venant d'homme politique moom moo doon wax moo tax man dama mos a jàpp ne c'est de la diversion et l' avenir nous parce que depuis lors leen dara ci affaire wu procédure boobu c' était un moment boo xamee ne que nii c' était événementiel il fallait donc moom mu marqué de façon triste d'ailleurs je considère mu marqué son territoire et je pense que loolu véritablement pour man c'est de la diversion ça n'a absolument aucune connotation juridique ça n'a aucun fondement sur le plan juridique voilà mais merci beaucoup maître Pape ci nangoo tontu bi nga nangoo tontu suñuy laaj c'est moi qui fàttali ne yow yaay président bu comité sénégalais des droits euh, de l'homme avocat ci barreau bu Dakar merci beaucoup maître Pape Sène. c'est moi qui vous remercie maa ngi lay sant bu baax. jërëjëf.